que en tant des femmes vice-présidente euh, des donc euh, du front de l'opposition tey fait Nous fait d'abord pour saluer un grand monsieur un homme d'État le plus grand démocrate que le pays n'ait jamais connu mais aussi quelqu'un qui s'est battu pour ce pays. C'est pourquoi nous le portons donc le plus grand estime. On est venu donc massivement pour lui rendre hommage parce qu'il mérite l'hommage donc de toutes les femmes sénégalaises et surtout des femmes de l'opposition aujourd'hui. Parce que depuis son départ, nous pleurons donc la mort de notre démocratie, la mort de la justice au Sénégal. C'est pourquoi donc on est venu, comme je l'ai dit tantôt, pour lui rendre hommage. Mais aussi lui demander solennellement de revenir sur sa décision. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin que Maître Ablaï déclare une position pour soutenir un des candidats soit le pur, soit son corps, soit Idrissa Seck, parce que nous avons besoin qu'il soutienne un de ces candidats et nous allons insister pour que son choix porte sur l'un des deux, parce que nous n'avons pas besoin de boycott. Nous avons besoin, le soir du 24 euh, février, que le président Macky puisse dégager. Et si est-ce que vous êtes prêt à boycotter les non nous n'allons pas déedéet du ñu boycotté bu soobee yàlla Abdoulaye Wade xam nañ ne xëy na dafa waxoon rek ci fuggam comme biñ ko xamee mais xam nañ ne tey jii bu ñëwee ab ñun niñ ko sargalee ab ni ñu ñëwee massivement pour soutenir ko mais aussi pour sargal ko xam cër gi mu am ci dëkk bi xam Abdoulaye Wade lan la doon représenté ci démocratie ab Abdoulaye Wade bi mu fi jógee ba tey ni ñuy jooyee teewu justice fii ci Sénégal xam na ne ñun en tant que jigéen bu ñu waxee ak moom jooytu ko li nga xam ne moom na ñu bëgg mooy que Macky Sall jóge fi Ablaye Wade dina revenir ci décision te dina soutenir kenn ci candidat loolu moom mooy suñu conviction xam nga man xam nga man femme xalifiste laa donc wax Abdoulaye Wade daal ci choisir rek ñu jàpp ci na doon rek un membre de l'opposition ñun dinañ soutenir kenn parce que dañ doon xaar li nga xam ne moom mooy décision CEDEAO parce que dañu jëloon xaalis bu bari dugal ko pour suñu avocat yi mën a porter donc recours boobu ñu defoon tey la ñu statuer suba à 10 heures bu soobee yàlla ñoom dinañ rendre seen décision parce que décision bi du rek dañ ko soxla pour participer ci élection mais dañ ko soxla pour ëllëg quoi? ko ci mémoire portez ko contre Macky Sall moo tax ñuy xaar décision boobu te suñuy avocat mais il faut nous jox les cër parce que ay nit du de dem la recours avant décision bi di génn donc de soutenir l'un des candidats mais je peux vous dire qu'à partir de demain ñun allons un autre Khalifa pour soutenir un des candidats moom daal li ma leen mën a garantir mooy que Khalifa ñun moom la ñuy déglu te dina soutenir un des candidats de l'opposition.